jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñiy lu seen site internet bi di 24 actu euh, tey nag seen émission invité de la rédaction euh, suñu ganu tey nag nekk Serigne Cheikh Sall ñu gën koo xam euh, ci imam Sall mu nekk président de l' association des imams et arabisants de Touba mu yëngatu tamit ci politique nekkee ci parti njiitu réew mi di APR suñu gan kon mu bàyyi la nga nuyu imam maa ngi lay nuyu. bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal sëñ Mouhamadul Muntaxa yàlla may ko kattan ak ba li mu bëgg a mu islaam ak jàmm. di ñaanal njabootu sëriñ Touba gi ñëpp. Euh, susi la ñu leen di nuyu bu baax a baax. imam ñu desiwaat ci kuréel gi nga xamante ni yaa ko jiite muy président de l' des imams et arabisants de Touba ñu bëggoon a xam kuréel googu kañ lañ la ko dénk ak kuréel gi nan lay doxee. waaw loolu ñu ngi ko créé woon 2012 euh, 2012 euh, la ñu toog xalaat ci ne il faut que ñu am kuréel goo xam ne day yëngu ci islam waaye di yëngu ci li nga xam ne mooy njàngale sëriñ Touba di défendre nag li ñuy tuddee yoonu murit ñu créé ko fii ci Touba Soura. naka ngeen di défendre li nga xamante ni moo di yoonu murit. waaw ci lépp li nga xam ne gis nañ ko ne méngoowul ak njàngale Serigne Touba teg li nga xam ne mooy am njàngaleem. est-ce que xam mën nañu xam euh, dëgg-dëgg euh, yëngu-yëngu yi mën nga ñu leeral dëgg-dëgg lan mooy yëngu-yëngu ak jëmukaayu kuréel bi bu baax a baax. waaw jë yëngu-yëngu yi mënul paase rek jàngale alxuraan ubbi daara <coughs> jàngal daara kere ay école wëlbatiku nag Euh, ku ne xam ne ne daara école moom bu taxawee jumaa yaa fa sës euh, yenn message yi di jàll ci xutba yi ci lépp lu ñuy dénoncé nag foofu lay jaar waaye nag ci ci média bi li ci des nag mooy activité yi nga xam ne moom la islam gën a yitte woon nag mooy message sam nga koy tasaare fu nekk nag ci ci ci àddina fu sa tànk joti mais dama dégg sa biir kàddu nga ne a ngeen di défendre li nga xamante ni moo di yoonu murit est-ce que mën nga wax exact tolluwaayu yoonu murit moment bi ñu toll waa tolluwaay yoonu murit moom ku ne xam ne ne xam nga Touba Serigne tubaa dafa bind benn xasida tuddee ko la Matlabul Fawzayni muy lakk Touba muy constitution mouridisme Matlabul Fawzayni boobu nag lépp la Serigne tubaa jël tënk ko ci biir mu ay projet moo tax ñu ngi ñaanal Serigne bi ginnaaw bi mu taxawalee université bii nga xamante ni bii macha allah moom euh, méngoo na ak yoon wi te la Serigne tubaa ñaanoon day am. ndax dafa waxoon ne duhaa yi istijaaba allah fi kulli naafihin wa qad saara li min mazaayaka mabura lu ma ñaanoon yàlla yàlla may na ma ko ba yonent bi alayhi salaatu sëq ci màngas suñu borom di ma jox waaw comme li nga wax tamit tolluwaay yoonu murit ak situation yi dëgg-dëgg tamit ci yoonu murit ndax ku ne xam na ne tamit euh, ci dëkk bi la ñu nekk mais am na ay situation yoo xamante ne ñu ngi ko ciy nemmeeku mm-hmm. est mën nga ñu dikkal foofu bu baax situation yi ñu mën a bu ñu demee ba ñëpp wax jaxasoo am na mais nit bala ngaa nekk nit nekku kilifa diine nekku sëriñ lii day jiitu ci yow ba nga doonee xale ñu yóbbu la ca daara ya nga jàngi alxuraan waxuma la. mais imam nga wax ci yoonu mu murit wax ci situation yi tamit ñu bëggaan nga dikk dëkk ci li nga xamante ni moo di l'islam ak politique. waaw lii nag bu dajee mm, euh, mooy man a tax xam nga dañoo toll ci situation bi nga xam ne comme ni nga ko waxee ñu bëree bëree nag waxuma la waaye seen ali waa xam nga alxuraan moom bu fekkee da yem ci wàcc <laughs> wala euh, moom munoo tari ñaari sib buñ la joxe jumaane la naafilaal munoo naafila nga bëgg a sol garaam bu taxaw ne sëriñ laa nag mais yow loolu nga wax fan nga ko teg loolu dama bëgg a wax ne situation biñ toll dafa am ci jamono ji ñu ne boo génnee fii ci dëkk bii ak foo mën di dem na nga fay gis ñu ne kilifa diine boo ko tegalee néew bi ko jullee dafa am ci Touba fépp la am ci yoonu murit boo demee ci ndakaaru fu nekk maanaam dañu bëgg jël murit gi bëgg koo teg ci ak yére ak folklore ak col te du loolu ñu ñan nga jàpp ne ñan la fu ne la am mu dugal ndakaaru gi xam nga li ñu gis nga léegi woote gi ni mu baree sëriñ boo xam ne xamee woo xaala xii la féréo ijji man waxuma la dara sax mais yow kaamil bi munoo cee munoo munoo naafi la munoo tari ci benn isi bu mat bëgg a wan nit ñi sëriñ nga bu boobaa lislaam moom moo lay moo lay génne ci yoon ba yow nga jàpp ne daal su ma déggee sa biir kàddu moo xamante Touba la wala Dakar la am na ñu bëri ñoo xamante ne dañu mbubboo ne ñoom kat ay sëriñ lañ te seen jàng soriwul alliwu ji dara dafaa nekkut moo waral situation yu jafee ñu nekk waaye nit bu xam-xam lii ma la limal ku mu nekk sa bopp nga am beneen doxalin booy doxale bu dee boobu ñu nekk l'islam ak politique mënul ñàkk fokk ñu ndax l'islam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàkkam la daan politique lépp ci jàkk bi la ko doon defee mais ñun dañoo toll ci situation boo xam ne nit ki fokk mu maîtriser diine nekk li ñu tuddee mufti. mais est que mën nga méngale euh, si euh, politique bi nga xamante ni mën nañu Seydina Muhammad daf ko daan def ak jamono ji euh, ni sëriñ yi di politiquer. xam nga ñii di politique homme politique yi ñoom mëtuñu ay njiit. ñoom bu ñu doon jël cadre politique di ko wax ñoom dañ cee war a génn parce que politique bu salté lañuy def xam nga lan mooy politique bu salté lu ñu la wax du am maanaam li ñu tuddee kàcc ba pare dañuy wor ba pare alalu askan wi dañ koy lekk. mais si ban côté la ñuy woree. parce que boo ne ñoom li ñuy wax dañuy kàcc te ci wor la ñuy nekk dañoo bëgg nga. am loo xamante ni euh, dañoo bëgg nga leeral ko parce que ñëpp ñëpp lay seetaan ñu bëgg nga leen ñii kat ci lii ak lii ci la ñuy wooree li bëgg xam ne xam nga tey dañ ne taq wallahi muy ragal yàlla bu nekkul ci yow boo nee da liggéey ndoog askan wi da nga leen trahir addina dañ leen njiit mais est nit ki moom mën na gis nit ki da xam ne kii moom tax walla mi ngi ci mi ngi ci moom waa léegi sa doxalin moo koy wane maam nit ki suñu ñu tey ak suba rek dinaa xam ki am na ragal yàlla wala déet waaye dañuy nax askan wi nax askan wi mooy boo soxlaayee ñëw ci population bi ñu jàppale la boo jekkoo dem doo leen dimbale ci dara xam nga réew mi tey boo xoolee ñu ngi ci coono ñu ngi situation boo génnee Touba gi rek ci sancaan yi quartier périphérique ñu ngi ci coono Ndakaaru boo fa demee fa la wulee ñaay léegi nag ba ñu dalee politique ba léegi 1960 gi ñëw ne am nañu indépendance Sénégal mënul avancer kon da ngay jàpp ne ñii dañoo échec échec bi ñu échec moo waroon tax ñoom ñu bàyyi kilifa diine yi ak googu lan moo ko waral moom lañ bëgg échec bi mooy ñàkk xam fi ñuy jaar ak ñàkk a ci li nga xam ne mooy dëgg ñàkk a ci dëgg googu na xam nga fan la nekk mm-hmm. ñun dañuy dund ci benn république république bi ñuy dund dañuy wax ne ñu ngi ko créé 1958. 1958 boobu ci la ñu créé maanaam li ñu tuddee constitution boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci gouvernement française de moo ko teg. léegi nag constitution boobu nekk France moom la ñu indil fii ñun méngoowul ak suñuy jikko ak suñuy aada ak suñu valeur su ko defee ni ñu koy appliquer diine bokkul l'islam bokkul daara bokkul sëriñ bokkul kenn bokkul li fi ak moo ngi fi Sénégal du avancer mètre loolu la sëriñ yi war a combattre. mais imam ñu dëgg duggaat ci politique bu baax a baax ndax yow suñu nemmee ko yaa ngi ci parti njiitu réew mi di APR ñu bëgg xam yow parti boobu lan moo ci sa taxawaay ak kañ nga ci dugg. parti bi dañoo bokkoon ci ñi ko sos. xeex bu président Macky Sall falu waaye na xam nga mooy li ma la doon wax léegi ci sànq ci wor yi ñi ngi doon ànd ak ku ñu wax ABC ñu koy wax Alioune Badara Cissé nekk médiateur de la République mm-hmm. ak ku ñu wax Abdoulaye Sylla ñaar ñooñu nag bu ma doon cité workat dama naan ñooy ñaari workat yi gën a mag. lan lañ leen waree ak ci ban côté. médiateur de la république muy Alioune Badara Cissé dañ doon ànd guddeeg bëccëg fu nekk pour xeex pour président falu yàlla dogal bi ñu ko dàqee ci gouvernement bi xeexal nañ ko ba ñu jël ko ndax nekkutuñ leneen mu nekk médiateur mais bi mu nekkee médiateur léegi daa jàpp ne moom àddina boo xasee falu jeex na doo fi jóge xoolal di dañ ne dawlatul baatili saxan waaye wa dawlatul xaq ila saxa lépp lu ñu sos ci ay caaxaan waxtu yu néew mu départ lu ñu fondement nag ci dëgg. naka lañ nekkee. par exemple bu fekkee dañoo xeex doon fal njiitu réew président falu. Euh, gisatuñ leen euh, ñi ngi laqatu ñi ngi tukki ñi ngi lay-lay boo waxee da nga kër gi boo xeexee ba kër gi taxaw. mais yow mais yow bi ngay bi ngay bi ngay xeex ngir bëgg a nekk ci parti bi nga xamante ni moo di APR yow xeex nekk ci biir biir parti bi muy APR mais yow dañoo bëgg xam ba xam yow lan moo la ci dugaloon yow kat da ngaa da nga gis ne APR kat moom mën nañ ne da nga ne opposition ne pouvoir te moom boo ci duggee am na loo xamante ni moo la ci dugaloon yow da ngaa dem ba ci biir la nga xamante ni moo dugaloon ci biir parti bi gisatoo ko ci a génn wala jàppoon ne Sénégal dafa soxla woon changement am ñu jëlee li fi nekk indi lu fi gën président tegoon benn programme mu yoonu yokkute lam ca tegoon mu jël ko sànni ko ci àll ba fii ak yokkute amuk fi ak toroxtaande moo fi am parce que nit ñi gis nañ ci coono yi ñu nekkee ñun membre fondateur lañ. nan lañ nekkee ci toroxtaande. gënuñu cee sonn waaye pour ma del rek dama naan la ñaar ñi ñooy workat yi gën a mag muy Alioune Badara Cissé médiateur de la République ak Ablaye Sylla parce que bu fekkee maagee ñooy ànd ba li ñu bëgg ñu am ko ñu nekk ci njiitu réew mi te ba pare ñun mënuñoo toog ak njiitu réew mi suñuy jafe-jafe mënut a jàll ci ñoom kon damay jàpp ni ñii dañu trahir su ko defee nag loolu bu jàppee na ñun danañ ci dugalaat suñu loxo di ci sonn nax nañ seen bopp Euh, dëgg la mais ñu gis ne tamit géopolitique bi euh, coow li bari na lool loolu tamit yow ban gis-gis nga ci am. gis-gis bi ma ci am mooy dañoo dund sept ans yoo xam ne yu mitti la sept yoo xam ne nit ñi dañoo sonn nit ñi kàcc nañ leen nit ñi ngëcc nañ seen deret mucc ko ba mu jeex nit ñi seen àq dagg nañ ko ba mu jeex. naka lañ daggee seen àq. jeex xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne. man iqtata xaqa imri in muslimin bi yaminihi faqad awjaba allahu lahu naar te gis nga doomu aadama soo daggee àqam lu toll ni tarfatal ci suuf nga xam ne boo ko bàyyi woon ci jaww ji du wat du dal ci suuf nee na jàppal ne yow sa jëmm ji araamal nañ ko li nga xam ne mooy aljanna directement sawara la boo fa ñooñu nga xamante ni da nga ne dañoo dagg àqi doomu aadama yi damaa bëgg tamit nga teg baaraam ne ñii la àqi doomi aadama yi mooy tey ndool gi réew mi nekkee Touba gi situation yi ñu nekkee di ko dund xam nga ne jaarul ci juróom-ñaari at yi ndakaaru gii nga xamante ne bi man fi nekk parce que dama yore sama école di jàngale foofu tey nit ñi ci jafe-jafe bi ñu ñii bu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki yalwaan mu dul jeex koo gis mi ngi ci yoo xamante ne bii doo xam fu nga ko jëlee ñu dund ko ci juróom-ñaari at yi daa nga yaakaar juróom-ñaari at yi da ngay jàpp ne kon ñi leen jiite lañ waroon a jox mu wàcc ci askan wi aggul ci ñoom te bu fekkee yaa jiite nit ñi te lañ waroon a am amuñu ko kon xoolaatal sa toogin moo tax changement dina am ñu ngi koy dënmal coow lu tamit commencé naa bari loolu moo bëgg a xam tamit ba xam na naka ngeen mën a def ba parti bi nga xamante ni mu di APR mën a gañe ci élection yi actuellement ma toll man doxuma ci pour moom muy gañee damaa toog téye sama bopp yow yaa ngi ci biir biir APR waaye dama ne damaa toog téye suñu bopp ak suñuy nit di xool kan lañ war ma àndal su ma déggee sa biir dafa mel ni dangaa nekk ci biir APR bi pare bëgg a nekkaat mel ni lu yàq dañuy xool benn candidat waxtu gu ci su ma faloo lan laay warlu jàngalekati alxuraan yi arabisants yi seen ëllëg ak ci situation bi ñu toll te mooy li ñu tuddee constitution franc-maçonnerie est-ce que xam nga ne constitution bi moom constitution franc-maçonnerie la léegi loolu candidat bu ci waxut ñun duñ la wateel ak ñun nitu diine yi ëllëg suñu ëllëg programme boobu kenn laay dégg mu ci junj muy sonko moo naan suñu xaalis bi ñuy jël di ko joxe débat technique la moom gars yi dañ koy daw waaye man du xool ay sentiment gi yee li ci topp mooy fii ci Touba ñaar dafa kenn mënu koo gaañu ñu ci dugaluñ ci suñu loxo wane woon nañ suñ bopp ci référendum bi wane suñ bopp ci élection législative yi situation saa si wut gis nga. yow yaa ngi yaa nekk ci biir parti bii de APR xam nga su fekkente a continuer ne carrément man damay continuer tamit da parce que yow sa biir wax am na loo xamante ne mën nañ ne dafa naqari ci biir parti bi yow kat da bëgg pour génn dem si beneen parti wala da ngaa bëgg a nekk si biir loo hmm. loolu moo waral maanaam nee la ku àndoon ak médiateur tey fee yor ak ñeneen ñeneen ñu yor seen milliards ñun lu ñu daj ci da defe ne danañ jugaar rek naan ñoo ko yor wala watee leen ñi mais situation yi nga xamante yaa ngi koy jàmbat bu njiitu réew nit ñi nga xam ne dañ ci jàppoon ba ba ba alternance am te toogaatu ñu toogu ñu tey ñu ne ah li nga xam ne nii lépp loolu lañ demandé ñu def ko ndax am na lu ñu digoon waroon ko def defuñu ko su boobaa ñun suñ loxo duñ ko ci. lañ leen digoon. bari na ay conseillers digoon nañu ko ay chargés de mission président de la république toog nañ Alioune Badara Cissé toog noox ne dinaa leen jàppale ci ay conseillers ay chargés de mission ak yeneen ak yeneen jàppale li nga xam ne mooy daara yi jàppale ara école arabe yi loolu lépp defuñu ci dara am na nag ñuy wër ci dëkk bi sëriñ buñ dem seet si la. ñoom ñan lañ ñan lañ. ay DC lañ mën naa ci tudd ku mel ni Lat dugg ci dëkk bi bàyyi géejiwaay gee mu nekk mënu fa dara mu ñëw Touba sëriñ bu mu dem photo woo yow dajale mbooloo nga dajale say taalibe mu jox la benn cent mille francs bu demee def surfacturation ca la nga xamante ni mooy président ko décorosé naa diw kon nga jàpp ne ñoom xaalis boobu nga xamante ne ñu ngi koy neexalee sëriñ si mën naa mën naa jënd sëriñ si wa ci tudd kenn daam ku ko ci def Lat Diop dafa ñëw Daaru Marnaan seeti sëñ Moodu Ablaay doomu sëñ Maam Cerno mu dajale taalibe mu toog ci wetam photo wu caméra nangam ak nangam bu ko joxee ba jox du passé 100000 francs bu paree dem ci président di ko ndax ne ko maa ngi réglé Touba baax. mais yow moom yow comme que dama woon ci jotaay ba moom xamoo lan la ko jox. xoolal sama koñ la ñoo dëkk ñoo sosoo dama ne sëñ Mourou Ablaye moomu mu dem di ko ger ak defee ne sëñ Mourou Ablaye doomu maam Thierno mun naa tax mu gañe Touba da koy nax président lay nax. olof dafay faral di wax ne taal bu tëw a tàkk moom côté bu nekk nga koy ëffee ki. dama ne soxna Astou yow ñeme ngaa dem ba dakaar ca Géejawaay naan damay régler situation Géejawaay bu boobaa loolu ñu tuddee Samba Alaar te am na ñu nekk Géejawaay. nga jàpp ne moom Samba Alaar la. dama ne lekkuñu naanuñu moom mu ñëw Touba naan may régler Sall maa ko koy gañeel du ko gañeel dara te danañ ko xam ne ñun ak moom la parce que ñun dinañu battre campagne wan Macky Sall ne ko Lat Diop du mooy régler situation wala keneen ku dul. yow situation Dakar yaa koy jàmbat wala ñun dëkk Dakar tamit koy jàmbat. waaw xam nga moom Dakar la jugee ñëw Touba mm-hmm. ne moom daa bëgg fexe ba Touba Macky gañe ko Touba réalité Touba Macky xamu ko moom xamu ko tuuti na ci te moom du moom mooy gañeel président ñun Touba ñoo ko mën a régler ñoo ko mën a régler waaye du moom na dellu fa mu dëkk loolu rek laa bëgg a wax sëriñ si muy nax nag di photo ak ñoom. jàpp ne Macky moom réalité Touba ko. sàllaane loolu du jàll. mais tamit euh, imam euh, suñu euh, seetloo tamit ne élection yi ñu ngi ko doon ma soreetul mais kii di président Macky Sall xool nañ ne moom mënul gagné fi nga xamante ni mais di muy Touba ñu bëggoon a xam loolu lan mooy sabab bi. xam nga lan mooy sabab bi. Mm-hmm. dañu fiy bëgg a bàyyi ñi nga xam ne ñoo doon combattre élection yi 2012 dellu ci di wut ay ay ay transhumance ñoom ñu bees lañ soxla ñu bees tey dañuy fàtte nitu démb loolu lañ tuddee suul jëf. jëf ñenn lañ fàtte. mooy yow comme démb faloon nga président kii ñëw ne di bees moom la ñuy jël di ànd ak moom. waa ñeneen laay wax su ko defee nag. li fi ñi ngi xëcc transhumance ak jàpp ne ñi xeexoon démb dañ leen di tegee ne mm-hmm. mécontent yi ak frustration boobu am ñoom ñooy wat sanction. comme que yow moom yaa ngi yow moom yaa ngi APR moom pour man waroon nga def le tout pour euh, jàppale Macky Sall ci fi nga xamante ne fi nga nekk muy Touba. waaw dama ne 2012 bañ koy xeex ñii fi taxaw ne ko tey nii. ñun ñoo lay falaat ñoom dañ ko doon xeex ne ko doo fi fal tax élection yi kenn ku ci nekk bala ngaa jël saw carte di ko watte nit ki xoolal ba xam juróom-ñaari at yi lu mu la waxoon def na ko yow nga jàpp na Macky Sall li mu wax ci juróom-ñaari at yi def boo mais tamit euh, dama gis ne Macky Sall boo xoolee Ila Touba bi ñëpp ñu ngi koy mbubboo naan Touba Touba Touba Touba est-ce que jàppoo ne Ila Touba boobu mën na mooy Macky pour mu gagné fii di Touba xam nga Macky Sall du Touba rek la war a mën a gañe yooyu ñun réew mépp la ñuy wax. mais dama la laaj parce que yow yaa ngi ci APR Touba nga féetee. déedéet loolu mënu ko may pour mu gañe parce que xam nga lu tax. di Touba di deuxième ville du Sénégal. Serigne Touba liggéey dëkk mu mel ni Touba nga xam ne benn la ci àddina bi. nga toog fi sept ans lenn loo fi def lu dul benn autoroute boo xam ne autoroute bi autoroute Sénégal la man bàyyi leen wax jooju. mais Ila Touba lañ eh, nekk ay citoyen sénégalais. Mhm. di fay ay impôt di fay taxi di fay seen i loi kon alal jooju noonu dafa am Touba ba mu waree am autoroute ak léegi war naa mat 30 ans mhm. nguuru Abdou Diouf la Touba waroon a am li nga xamante ni bii mooy autoroute parce que màggal Touba gi xam nga ñaata lay génne ci recette 400 350 milliards la ñuy am recette ci màggal ñun autoroute bi tey Touba bu ñu ko waxtaanee man nañ koo defar kon économique bi bi nga xam ne mooy économie Sénégal lu koy génnee Touba war naa mën a am autoroute. mais ñu gis na tamit ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko boo dégg ci ay lu bëri dafay wax ne man Macky Sall laa amal affaire est-ce que diitalul man xaw ma ñoom tiital na leen xaw ma tiitalul waaye ku tiit waaw dama ne non man li ma bëgg a wax mhm. kuy tiit yaa fekk da ngaa liggéeyut gis nga nit bu fekkente ne da liggéey mhm. bu campagne jotee da ngay dem tëdd sa kër sa pro ñii candidat yi ñoom dañoo toll ci ñoom nag wan nañu bu ñu jotee réew mi fan lañ ko jëmee waaye moom bilan la war a mane boobu nag bu doyee sénégalais ñu xool bu doyu sénégalais ñu changé nag. mais moom tamit ñu gis ne bureau bi nga xamante ni dafa nekk yoof bu yàggul rek yàqate nañ ko euh, coow li bari te élection yi dënmal nañ ko est-ce que loolu tamit mënul indi benn problème boo xamante ni mën na yàq ci élection yi. waa xam nga élection bu nekk mënul ñàkk mu am violence Dakar mënul ñàkk mu am violence gis nga ko. bu fekkee ñii ñi ngi recruter ay nervi ñii jaar fee ñii jaar fee ñii jaar fee fokk ñu def loolu mais jëf ju ñaaw la élection mën nañ ko def comme États-Unis ni mais tamit seetlu nañ bu baax tamit ci euh, APR am bëri ñoo xamante ne ñi ngi fàq di dem ci yeneen parti ñii ñi ngi dem ci Sonko ñu tamit ñi ngi dem feneen est-ce que loolu tamit euh, nekkul loo xamante ne mën na yàqal waa APR. képp koo xam ne da ngaa dund ci nguur ba mu jeex ci nguur Ablaye wat nga ñëw fii xaalis ñu jënd la jàppal ne deratu gor nekkul ci yow gis nga ñii nag askan wi dañ leen a suur képp koo xam ne da ngaa bàyyi ba nguur di waaj a jeex nga daw tafu ji ca ngir xaalis yaay dem waaye askan wi duñ la topp. yaa ngi APR te man gis naa ne yow jàmbar rek nga fi nekkee ci APR mais nag dama bëgg tamit nga wax ne yow. koo xamante ni am nga yaakaar ci moom ne kii kat buñ ko jàppale moom dina dem. waaw li ma bëgg wax rek mooy lii fi nekk dara daa baaxut sept ans yi ñu nekk dara dafee baaxut kon il faut que nag bu ñu campagne bi démarré ba dawal une semaine ba ñu diglu discours yi dig gis coalition yi su boobaa askan wi ñooy décider la njëkk a trahir bañ lañ doon àndal ak ñi fi nekkoon ñooyu ñi ngi fi xanaa mënuñ leen wax indiwaat leen seen carte yi te amuñ leen leen jox amuñ fi leen dugal xalaatuma ko ci àddina dañuy baatal campagne nag wax askan wi ñu téye seen i carte seet changement ñu seet fu ñu ko def mais yow est jàppoon man kat maa ngi ci parti tamit te euh, daanaka defuñ ci lu bari loolu jàppoon ne tamit li mën a gën a néewal doole Macky Sall ci Touba bokku ci. wax sànq ne la frustration bi am ak mécontent yi ak ñun ñi ko sosoon. ñu teg ñu nii loolu moo waral defet yi waaw lan ngay dénk askan wi nga xamante ni ngi lay seetaan ak élection yi tamit yi ñu dënmal euh, naka lañ ci mën a def. danu Touba li ma leen di dénk mooy ñu xam ne ñun ay murid lañ sëñ Touba rek la ñu gëm kenn mënuñoo nax. bu leen kenn jënd. imaam sa yu mujj. waaw di sant rek 24 actu di la sant soxna Astou la. vraiment euh, am nañ mbégte bu baax a baax ci jataay bi liñ naan li duuf ci nag yi xajul ci cin li. Euh, jërëjëf euh, imaam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mu nekkoon Serigne Cheikh Sall ñu gën koo xam ci imaam Sall nekk président de l' association des imams et arabisants de Touba di tamit ci parti njiitu réew mi di APR ñu bu baax di ko gërëm Cheikhouna Ndiaye moo nekkoon ci caméra bi ak Ousseynou Mbodj ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax képp ki nga xamante ni yaa ngi doon bàyyi xel seen site internet bi di 24 actu di leen jox dig daje ci yeneen jotaay euh, seen émission invité de la rédaction mbokk yi jërë ngeen